لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا القرآن نينا نتكي nit كتنك كتمجو سين ka سين ñëkk bu ñu dajee woon jàppalante ngir wax lu mel ni alquran mënuñu wax jenn laayu ju mel ni alquran téere boobu yi nga xam ni mooy ndënd li yàlla samp ci kanamu képp kuy wedd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni boo gëmul ni yàllaa ko yónni moo ko ko jox waxal lu mel ni moom téere boobu yi la gon yi def ci seen dënn imaam Mamor alquranul karim bi gone yi mokkal mooy ni tàmbalee fatiha yem naas bu kenn di waxati baqara ba naasi fatiha ci la bokk te li gën a barkeel téere bi la bokk li tàmbalee fatiha yem naasi moom la dongo yi mokkal imam mamor imam mamor téere bi dongo yi mokkal moom la yàlla tudde alquran di téere bi nga xam ni moo teral yonente bi teral sahaaba yi teral ku mas a tedd ci àdduna te kuy tedd alaxira moo la teral chahru ramadan alladi unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan imam mamor téere bi gone yi mokkal la yàlla tudde alfurqaan di téere bi nga xam ni bi mu ñëwee la dëgg leer naññ ci kaw neen تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا برمبي وحكوتي بربي يبرج القران انا هديناه النجدين نيار يون يوي ديون دغ يون نين القران مكليرال انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا تربيد الفرقان مخجل يون ليروي وانا يون ودي نين غير ني ام خيل نيب تدغل سن برم سبحانه وتعالى جارتي يون ليروي كون القران مودي الفرقان امام مامور téere bii dongo yi mokkal moom la yàlla tudde alburhaan moom la tudde an nuur téere bi mooy téere bi nga xam ni ku ko yóbbu ëllëg yawmal qiyaam def ko lay ci sa kanamu boroom di nga texe ci kanamam waaye ku ko fa yóbbu it ëllëg yawmal qiyaam yóbbaale nga leer goo xam ni kenn du la woon fa nga jëm da ngay mën a yóbbu sa bopp ca sa kër aljanna borom bi nee na qad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuran mubina wàcce naa lay wut bir woo xamante ni ci seen borom la jëlee ku ko ci àdduna yey ku ko layee ci àllaaxira yey leer la goo xam ne ku ko nitoo ci àdduna tarxis doo jàdd ku ko nitoo ci àllaaxira àgg sëkkër aljana téere boobu la dongoy mokkal imam Mamor téere bi dongoy mokkal moom la yàlla tudde albayaan di téele bu leer bi naññ haada bayaanun linnaas la yàlla borom bi subhaana taala wax borom bi nee na li ci ñëw lépp firim fànc naa ko leeral naa ko képp ku ko dund dundee sallallahu alayhi wasallam ko dunde woon lu leer naññ ngay def kitaabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin xabir borom bi subhanahu wa taala nee na alquran dara lan tuji li ci borom bi dëxëñ ngir teg ko ci ndoddal ñi doon wax ak yonent sallallahu alayhi wa sallam ngir wane mooy yàlla ngir wane ni mooy waxam loolu rek la ca kenn xamul waaye lu ca aju ca def leen lu ca aju ca bàyyi leen borom bi nee na leeral naa ko moom leer nañ fiihi ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa uxaru mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إمام مامور تيري بيدون غي مقل مملا يعلن تيري مبارك كتاب مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه تيري مبارك لنيني موتخون ينتبي باركل موتخ أجنب بوتم باركل موتخ صحابي باركل موتخ كوام باركي تشاردنا باركل ديو كوكالا نين دخدا نين këriñ ku ko laal ñuul ndax daa ñuul ku laal ci alquran ak noo ci laale barkeel imam Mamor téere bii téere bii moom la yàlla tuddal huda mooy njubug àdduna ak walaxira imam Mamor damay faral di wax ni ñaan gi yàlla njëkk a julit bi ngir mu di ko ko ñaan àdduna ak mooy ihdina sirat al teg ma ci yoonu jub bi wan ma yoon woo xam ne bu ma ci jaaree du ma tarxiis du ma gëlëm alquran fatiha jeex alquran tàmbali daalika alif laam miim daalika alkitaabu laa rayba fiihi borom bi ni hudan ñu dem ci alquranul karim fekk barab yu bare bare bari borom bi tudde fa alquran alhuda wa anna lamma sami'na alhuda amanna bihi njubuk àdduna ak laaxira la ko nay mokkal imam Mamour nañ leen bàkkal buñ paree nañ leen teral ci kàddu nañ leen teral ci suñu jëw nañ leen teral ci lépp lu ñu am ndax donga yi dañoo mokkal teraange àdduna ak laaxira imam Mamour asalaamaaleykum